jërëjëf mbokki MPROD yi tey ngeen di soog a gis sunguf soo xamante ni ci période bi nga koy sangoo ci période boobu ngay amee xaalis pourtant sunguf si boo ko sangoowee donte tëjul sa néeg nit fëgg la fa jox la xaalis sëñ Narka Badar di soog a génn ci li nga xamante ni moom mooy xalwa gi. gis nga ko noonu mu jël kurus gi di ko wërale sunguf sëñ bi da ngay tibb sunguf si sotti ko ci biir Sénégal lay xam pourtant ndekete nit ki bu fekkee dafa moom moo ko teg boppam mu ne ma kaay nag nga wax la li ci dàqati moom mooy. nit ki nga xamante ni dafa taxaw ne moom ak dundam da cee bëgg a nekk milliardaire pourtant mën na koo nekk ci lu yomb jëmm ci mooy le marabout de Ousmane Sonko. pourtant ci période bi ñu ko contacté mooy période bi Sonko nekkee ci kaso mënuma Sonko dinaa la wax bis bi muy génn ak ni muy génnee ak bu génnee ban mbubb lay sol gis nga sunguf si noonu moo koy sotti muy baax yéen a ngi soog a gis sunguf suy baax si naar ba badar tey dama la fekk ci dugg liggéey bi ngay soog a génn xalwa mais sunguf su zone si ban xeetu sunguf la waaw alaa ji dégg maanaam sunguf si dafa nekk ay garab yu bari yoo xam dañ ko boole. ndaxte am na ci sunguf su weex see. baax gi muy baax ni moo jaaxal. maanaam loolu baatin la. ndaxte sunguf si liñ ko mooñaale maam daa ànd ay raw xan yoo xamante ni mooy waral sunguf si di baax. yaa lii faa nga ko. waaw faa nga jël sunguf si ni maanaam. gis. nga maanaam euh, raw xan yi nga xamante ni. moom lañ liggéey garab yi ndaxte garab li ci am solo. boo ko dee wut dafa àll bi da ci am garab yoo xam ne garab yu góor la. am ci garab yoo xamante ne garab yu jigéen la. loolu lu mat a xam la. nekkul ne da ngay dikk rek di dagg garab. maanaam di ci liggéey lu neex. Uhuh. garab yi nii ki nga xamante ni moom laa koy liggéey doon ko defal juróom-ñaari fan. bi ma génnee ci xalwatu yi. tàmbali ko cangaay li nga xamante ni moom laa koy liggéeyal. nga xamante ne garab gii may liggéey. xay la waaye xay gi xay gu jigéen la. garab gee ngay gis. xay la. waaye xay gee xayu góor la boo xoolee ñaari sunguf yi bokkun mhm. xay gu góor gee moo gën a xonk. xay gu jigéen gi. léegi ngay seen sunguf fas ndimbali la. sunguf see fi ne maanaam boo ko dee wut yow mi nga xamante ne yaa ngay wut. saa boo xëyee da war a xool sa taatu maanaam yére yi nga xamante ni ñoo ci gën a riis. moom ngay sol dugg ci àll bi. sa poos da ngaa war def alal ju bari. lu tolloog maanaam 5 million gën nga gàtt. def ko ci sa poos. laal parfum bu neex lekk ndawal ba sa biir fees ndaxte garab gii boo ko dee wut muy sungu si weex si. boo ko dee wut maam ni nga demee ci moom rek noonu lay def. kon xaalis la. xaalis moo ko tax a alal. moo tax boo ko dee wuti da ngay riis. sa poche lu mu gàtt gàtt def ci 5 millions 6. solal yëre yu riis yëre yëre yu riis. Mhm. lekk ba su biir fees. Mhm. nga xam ni boo ko dee wut yow mi koy wut maam na nga demee ci moom. noonu la lay garab gi alal rek moo ko tax a jóg. waaye li ci gën a doy mooy àll bi Sénégal bi dafay amut muy ndimbali gii. amu fi eh, waaye boo gisee. liggéey bi doonu liggéey boo xam ne liggéey bu yomb la. ndaxte. cang baxee rek mu xam <coughs> càngal lii alaaji dégg. fi ne ki nga xamante ni moom laa koy duggal xalwatu. waaw. ñaari aajo rek moo tax may dugg xalwatu. soxnaam soo xamante ni ko wan ginnaaw. ak lu jëm ci wàllu alal lii la doon sàkku waaye sant nañ ci yàlla bu baax ba nga xamante ne li doon liggéey ci xalwatu yi borom bi subhaanahu wa taala nangul nañu li nga xamante ni moom la doon ñaan ndaxte soxna si nga xamante ni da ko wanoon ginnaaw borom bi dogal na ni maanaam la mu bëggoon ci am na ko waaye lii nga xamante ni moo jëm ci wàllu alal maanaam amul jenn doomu aadama joo xamante ni maanaam man sëriñ naar kay la duggal xalwat di la ñaanal yàlla jox la cangat lii nga xamante ni maanaam mooy cangatul milliardaire nga sangoo ko topp traitement yi ni ma la ko waxee. te doo nekk milliardaire. Euh, amul lii day bokk ci sangat bi. dégg xam nga lii lu mu doon. si mi limo ji fere na de limo. limo ji. waaw. moom it la doom boo xamante ni ñaari doom la. rek laa ci yor. Mhm. waaye da ci am garab goo si garab góor la garab gu jigéen. Mhm. nga xamante ni dama koy def ci biir saafara si moom it. ci lay ànd. maa ngi jégalu laa ji dégg. waaye gis nga euh, alaaji dégg. sunguf si waxuma la nga sangoo ko. waaye lii nga xamante ni moo takk ci sama loxo. ku ko u ubbeeku. muy sunguf si. waaw. li nga xamante ne moo tax sama loxo rek képp ku ko laal ubbeeku xam-xam du ceexaan xam-xam lu am la da cee am càngat yu neex yoo xamante ne doomu aadama ju ko sangoo ala kulli ak koo mën a doon ak foo mën a bokk maanaam famille ba nga nekk yaa cee gën a riis yaa cee waaw loolu nag xeeti cangaay yu neex yi nga xamante ne maa buñ ko liggéeyee boo noppi boole ko yi mu àndal ak cuuraay yi muy àndal ak parfum yi muy àndal képp ku ko laal ak famille boo mën a nekk yaa cee gën a riis waaw saw tur wi maanaam suñu borom dana ko yëkkati ba nga xamante ni wa taala lim lay jox ci alal daraja ji nga xamante ni moom la borom bi subhaanahu wa jox lii moom képp ku ma ko liggéeyal jóge ci xalwatu sept jours jox la cangaayal juróom-ñaari fan yi ak garab yi muy àndal ak limon yi nga moom laa def nga xam ne dafa am limon yu jigéen na ma koy liggéeyee maa ko xam waaye képp ku ma ko jox ci kàttanu yàlla ak koo mën a doon maanaam dangay ngay doon milliardaire moom nee nga ma dem nga ci ak guy goo xamante ni euh, ci frontière Sénégal bi la keroog mbubb mi nga soloon ak sëru rabal bi nga ne ma da ngaa fekk ñu daaj turu Ousmane Sonko ca guy ga xeeti liggéey yooyu lan moo koy def ci yaramu doomu aadama allah ji dégg maam da cee am xeeti liggéeyu yu bon yoo xamante ni ndaxte guy dafa nekk garab goo xamante ni maanaam mën naa la paaka ñaari bor la loo ci bëgg a def mën ko ci def bu fekkente ni guy gu góor la li nga xamante ni moom lay liggéey bu fekkente ni guy gu jigéen la li nga xamante ni moom lay liggéey bokkul ñoom ñaar lu def guy nga xamante ni guy gu góor la ci leen def xeeti liggéey bon yi bu dee guy gu jigéen nag mooy dox ci wàllu ubbeeku wàllu alal wàllu yëkkatiku wàllu bayre wàllu samp ci guy yu jigéen lañ koy def waaye bu fekkee liggéey yu bon yi nga xamante ne jàpp dama aadama aw yaramam ba mu nekk dootu mën a jóg wala nga def ko nit ki ba nga xamante ne maanaam ci jafe lay nekk loolu ci guy gu góor lañ koy def yaa ngi dégg waaye liggéey boobu nga xamante koo defoon maanaam Seydina Ousmane Sonko. mu sell mi. nga xamante ni keroog borom bi subxanahu wa taala. bërëb bi nga xamante faa nekkoon di fa jaamu yàlla di fa def riyaada ñetti fan. Mm-hmm. ci la ma xamal ne ma liggéey sangam def nañ ko ci guy sangam. Mm-hmm. ma ne ñokket dem ba ca guy ga génne ko. ndaxte Ousmane Sonko dafa nekk asgor soo xamante ni mm-hmm. day jàmbaar. di liggéeykat di ko maandu. Ousmane Sonko laa mës a gis koo xamante ni musta def interview di saaga kenn te saa su nekk nit ñi ñu ngi dal ci kawam muy muñ loolu continuer di nekk ci liggéeyam kon kooku as gor la kon buñ gisee lu bon ci kawam sañ nañoo jóg teggi ko ci ci jëmam te yàlla rek tax. sëñ Narka Badar euh, tey sëru rabal bi ak mbub mi nga sol lii lan ak lan lay def bëgg naa nga tojal ñu ko ndax yow rek yaa ko war a am wala ndax lii am na keneen ku ko war a am. waaw alaa ji dégg man rek la yàlla may ma doon kilifa goo xamante ni man na maa fekk ab sëriñ lu mu def ma dindi ko. sëriñ bu ko maa dindi fii ci Sénégal amu fi. boo gisee lii ma génne melokaan bi ma génne dafa am lu ko waral. ndaxte réew mi dafa nekk réew moo xamante ni dafa naqaree liggéey dafa naqaree waxee moo tax maanaam boo nekkee ndaw di fa liggéey mm-hmm. sunu borom jox la yenn xam-xam yi ak yenn daraja yi faaw ngay am lay toogaale boo ko defut danañ la yàqal bari na ci sëriñ si ñoo xamante ni maanaam bu nu sañoon tey tey tey sëriñ Narka Badar mi ngi ci leneen dootuñu ko déggate bu nu sañoon sëriñ Narka Badar danañ rëkki xam-xamam ba dootul xamante lenn loo xamante ni maanaam dana ci mën a faj aajo jaam ñi lii boo gisee ma sol ko protestant bopp ak xalwatu wi nga xamante ni juróom-ñaari fan la ci laa jugee moo tax ma sol lii ndax xalwatu bërëb bi nga xamante ni fi ngay duggee xalwatu dafa am ay rawxaani boppam yow mi nga xamante ni da ngay duggoo xalwatu dafa da ngaa am sa rawxaani bopp ñaari raw rawxaan yooyu faaw ñu dëppoo ngir li ngay sàkk borom bi subhanahu wa taala man la ko nital waaye bu fekkee bërëb bi ngay jaamu yàlla rawxaani ya ak sa rawxaani bopp dëppoowun ngir nga man faa jaamu yàlla ba li ngay sàkku ci xalwatu borom bi nital la ko du yomb sedda yàlla medun waaw xam naa ni dañuy continuer ci euh, leneen li nga xamante ni moo ci des ndax li li war a waxtaanee yaatu na. li ñu war a waxtaanee yaatu na sëñ bi est ce que du ma la bàyyi nga dugg ci biir nga euh, solwaat ñëw parce que nee nga ma faaw ñu toog waxtaan dama lay bàyyi nga dugg génn ñu toog waxtaan. da ngay def noonu bàyyi ma ma dugg. génn ñu toog waxtaan. ndaxte da nga maa fekk ci xalwatu ñaan ma ko ngir ma génn. Mm. mën a waxtaan ak yow. kon nag dama may tuuti ma dugg ci biir. ñu continuer waxtaan wi. ñu waxtaanee li xew ci dëkk bi li xew ci dëkk bi. kuy nekk président Sénégal 2024 demal soluté ñëw ñu waxtaan ci. boo ñëwee bala ma laa laaj ci situation Sénégal actuellement ndax loi bi nga xamante ni député yi ñu ko doon euh, voté euh, damay ñëw ci yow sëñ Narka sëriñ su bëree bëree bëree bëree bëri dañuy dute ci seet lan mooy problème bi. waaw allah ji dégg seet du ay caaxaan seet du ay fo. seet dafa nekk xam-xam boo xamante ni xam-xam bu wóor la seet dafa am te dama koy dëggal lu am la waaye seet maanaam fi bari na sëriñ soo xamante ni maanaam dañuy seetal doomu aadama ki nga xamante ni moom lañ seetalee mbiram danaan maanaam li nga xamante ni moom laa war na dégg dégguma ko fekk ni sëriñ bi li war a gis lépp gis na ko waaye seet dama naan ko amul aw fit ko amul aw fit doo ko def. ndaxte yenn saa yi nga seet ñëwoon la ci mbir yu doomu aadama loo xamante ni maanaam boo doonul borom mu fit dëgg dëgg dëgg doo ko wax ndaxte allah ji dégg dégg maanaam xam nga ni. man sëriñ Narki Badara doomu aadama ju may seetal say mbir bu fekkente ni dañ laa liggéey dama naan la di wala liggéey ndax man du ma ragal ndax ku dégg sëriñ Narki Badara xam la mooy xare Badar xam ni kooku du ragal man képp ku may seetal say mbir lépp lu ma ca gis dama la koy wax ndax ma bu fekkee dañ laa liggéey dama naan la diw moo la liggéey du ma ko nëbb loo xamante ni seet gi war na ma ko dama la koy wax waaye nag maam dafa am ñaari mbir yoo xamante ni ñu ngi koy boole te bokkut muy seet ak listixaar list xaar ba tey ak listixaar rawxaani yu bokkun ndaxte boo xoolee listixaar rawxaani yu moom rek ci nga mën a jaar di ci xoolal mbiri doomu aadama maanaam listixaar gi man laa wax ni la diw diwa ko liggéey diw nangam moo nekk ci moom tawati nangam la nangam ma ko def ci moom waxtu sàngam la ko dugg nangam ma koy dindi listixaar rawxaani yu képp moo leere noonu leneen lu listixaar rawaxaani wu noonu léegi nag mbirum listixaar kese ak listixaar rawaxaani yi dañoo ba dañoo jege te bokkut listixaar kese maanaam man nga cee xoolal mbir maam li nga xamante ni moom ngay seet li nga xamante ni moom ngay gëstu ci mbirum listixaar ñi leeral la ko waaye lépp dalul génn kon damaa bëgg maam nit ñi xam li nga xamante ne mooy listixaar rawaxaani yu ak listixaar daa nekk ñaari mbir ñoom dañoo nuroo te bokkut bu fekkente ne dangaa doon ko xam dangaa bëgg xam sa bopp li nga xamante ne dund nga ko ba wees ko ak li ci sa kanam lépp ñu xamal la ko ñëwal ci sëriñ Narké Badar saa bu la seetalee lam la seetal gisoo sa bopp woo ma ma delloo la sa xaalis ak foo mën a nekk. kon numéro yooyu affiché mooy numéro téléphone naar sëñ ba Badar képp koo ko ci woo rek da nga ko jot sëñ Naar dama dégg ne nopp yaa ngi ciy def loo xamante ni c'est rarement ngi sëriñ def ko nga ne ma ñi gën a bañante su ma neexee boole leen ñu gën a bëggante ki am jëkkëram muy taxawaalo nga ne ma kaay ma defal loo xamante nii sa jëkkër loo ko sant lay def foo ko toog loo mu toog fa xam-xam bi ngay def ci nopp waaw alxaaji dégg maanaam mu nopp man naa la dama cee nekk polyvalent côté bu ma neex laa cay génne fi ñaari doomu aadama yi nga xamante ni seeni xol àndut bu ma soobee maanaam ma boole seeni xol ñu ànd ca saasa waxuma la ki nga xamante ne daa bëgg nit ki te ku jigéen ku góor ki bëgg te ñaar ñoo xamante ne bëggoonte bëggante wuñ ma boole leen ban bëggante loolu man maa koy def ci wàllu nopp waaye fi na nopp dafa nekk loo xamante ni maam daa nur lu yomb te jafe doon loo xamante ni maam bari na ñoo xamante ni dañuy yëkkati seen alal di ko jox sëriñ si nga xamante ni yaakaar nañ leen te yàlla tax ngir ñu liggéeyal leen lu mel ni xeeti nopp ci seen i soxna ngir jaamu ci yàlla ngir bëgg ak dëppoo kër gi gën a neex waaye boo xoolee ñu ci bare bare naan la yàgg na ma cee ñaan waaye la ma doon sàkku ba léegi mënu koo gis maanaam mbirum nopp fi ne am na ci koo xamante ni bi mu ñëwee ci man dani ma sama soxna de bopp bi day métti do méttitu bopp da koo sonal bi ma ko xoolee ma ne ko maam daa am ku la liggéeyal nopp nopp gam nga xamante ne moom la liggéey moo jàpp bopp ko métti doomu aadama mën nga koo liggéeyal di ko noobal aw yaramam du tàng boppam du métti bu fekkee xam nga yoon wa ngay jaar waaye man képp koo xamante ni dinaa la noobal bu ma la xasee jàppal ndaw si dana la bëgg lool ba dootu la gëbee dana la topp ne xaj beneen ba ca topp mooy boppam du metti aw yaramam du tàng loolu da cee am solo yenn saa yi jigéen nga gis jigéen yoo xamante ne day mel ni ku dof la waral mooy lan yan ca bopp ba moom la àttanut xeetu nob yu ba ne ñée ngi sëf ñée ngi gas ñée ngi fas yooyu bu jàppee doomu aadama mën na koo loo waaye bu fekkente ne xam nga yoon wa nga war a jaar loolu lépp mën na jaa am waaye képp koo xamante ne da nekk cib sëy am te jafe-jafe wala nga am koy bëgg bëgg mu bëgg la lool te bëgg la wala nga bëgg ko lool mu bëgg la ta seeni waajur ànd ci ànduñu ci boo dikkee ci sëriñ Narka Badara jooni jooni 24 heures laa koy liggéey noob gi boo gisul wooteel ma delloo la sa xaalis ndax man du lekk lu léwut turu yàlla lay dundee ismulaay axsam kon nag jomb na maa maanaam lekk jenn alal joo xamante ni ëllëg yomal xëyam sunu borom dana ci rëq sama ndigg nan jàll ci leneen ji dégg euh, samp ki nga xamante ni ku ne xame na la ko buñ ne si narka badar ñu ne dafa mën a samp nit samp nag kuñ ko xasa def jaratul ngay tiit sa ginnaaw jaratul ngay tiit ci sa kanam nga ne ma nit ki samp rek moo ko mën a assurer ak dundam dégg naa am na samp gu garaaw gu doy waar gooy liggéey waaw samp dafa bari ay yoon boo gisee xalwatu juróom-ñaari fan wi nga juge ma jugee ak càngat yi nga xamante ni moom laa war a jox ki nga xamante ni moom laay ñaanal yàlla ci xalwatu wi am na samp mu àndal ndaxte nit kii boo ko duggalee xalwatu ñaanal ko ci wàllu alal ñaanal ko ci wàllu ubbeeku ak yëkkatiku te sëmpooko ci kaaraange la ko doon ñaanal lépp mën a yàqu ndaxte samp moo nekk fondement bi nga xamante ni bu dëgëree léppay baax day jóg ndaxte bâtiment bii boo koy taxawal maanaam faawu nga fondement ko fondement bu dëgër jënd feer bu dëgër ak xeer bu baax ngir maanaam sa bëti maa mën a baax samp mooy nekk li nga xamante ne maanaam mooy lépp doomu aadama doomu aadama bu sëmpul mën naa ne la lu mën a am ci addina mën naa xëy xëy génn ci ay loxoom samp doomu aadama rek nga mën a def mu doon koo xamante ni day bari alal lool aw turam sunu borom yëkkati ko ci àddina sëpp ku mu neex gis ko ku mu naqari nga gis ko nga xamante ni maa àddina sëpp buñ takk woon ngir xeex ko duñ mën ci moom dara samp bi nga xamante dama koy liggéey am na ci boo xamante dama koy def ci biteel am na ci samp boo xamante dama koy liggéey ci béjjënu nag am boo xam ne béjjunu xar lañ koy liggéey am na ci samp bi nga xam moom lay wax ne képp kuñ koy liggéeyal samp boobu xëjul ci kër fi ne ci àll dong lan ko mën a def ndaxte fal président samp bi nga koy liggéeyal mënoo koo def ci kër ndax kër goo ko def kër ga tas ci àll nga koy def moo tax samp li ma ciy liggéey man sëriñ Narka Badara amul benn sëriñ boo xamante ne mi ngi koy liggéey fii ci Sénégal sañ naa ko wax waaw ci politique bi euh, këyit lu ci gën gaaw ki bëgg papier wala ki bëgg tukki waaw wàllu këyit dafa nekk loo xamante ni maanaam lu am solo la waaye dinaa ci maye benn secret boo xamante ni kenn ku nekk dana ko mën a defal boppam ku ko mënta bind nga dem ci daara alxuraan yi neexal goo xamante ni amagul bàkkaar mu liggéeyee la ko da ngay bind wa rafax naa makkaanan aliyan daal di bind wa rafax naa làkk sikraak leen lu ci nekk 33 nga ci bind boo ko bindee nga boole ko 33 doomi limon nga def ko ci saafara si nga sangu ci ñetti fan bu fekkente ni da ngaa bëgg kayit boo déposé balaa am semaine ci kàttanu yàlla say kayit dana génn am na ci waneen yoon woo xam dañ ko ciy liggéey waaye yoon woowu maam doonu lu ñuy toog fii maam di ko maye ndaxte xam-xam du ay caaxaan dañ cee sonn daj ci lu ne xam-xam allah ji dégg ba bëggee dégg dëgg maanaam lu mbur de daj ci tàll ab tàll man sëriñ naak badar daj naa ko ci xam-xam ndax dafa maa yàgg jaral xam-xam maam jaral na ma maanaam jóg fanaani ci gétt goo xamante ne géttu xar la ay xar ak ñoo fay nekk ma tëdd fa fanaan fa ba asamaan set ndaxte daa am lu mën a wut ci génn góor lu jëm ci wàllu këyit uh-huh. keroog ba mu koy tërbiwu war na ko ci yàlla ci géttu xar laa fanaan uh-huh. kon xam nga ne loolu xam-xam rek moo ko jar xam-xam di caaxaan waaye wàllu këyit képp koo xam ne borom bi subhaanahu wa taala dogal na nii doon na loo xam si da nga koo yittewoo bëgg ko wala nga déposé ko mu yàgg lool te mënoo ko am boo dikkee ci man ci kat ni li muy ci liggéey bu ma ko ci bu fekkee borom bi jubboole nañ suñu mbir uh-huh. incha allah rabbi ñu ko am présidentielle yi ki bëgg jiite réew mi wan yoon lay jaar pour nekk président Sénégal. ki nga xamante ni moo bëggee jiite réew mi alxaaji dégg maanaam Sénégal laa naqaree waxee waaye li ma waxoon rek président 2024 ndomba li nga xama ndomba li nga xamante ni borom bi subxanahu wa taala takkal na ko ko ba may wax nii wàccut wax naa ko ci ay site yu baree baree baree baree. bëgg mooy te ñaan mooy réew mi fi mu toll maanaam élection yi nan ko organisé ñi war a bokk nan bokk Ousmane Sonko na bokk keneen ak keneen na ñëpp bokk bu ko defee ki nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala dogal na wàcc na aaya bi ci kawam kookii mooy jël réew mi te kookii xam nan ko bu baax a baax a baax na te ñun borom yi baatin lan dañuy xam li nga xamante ni mooy xew ci réew mi ak li fi bëgg a ñëw waaye nag la ca war ci wàllu ñaan ak wàllu sarax xaaruñu ci benn doomu aadama lu ci war nekk danañ ko def ci kàttanu yàlla te ki nga defal ay ñaan di ko samp ci mbirum président 2024 ci kàttanu yàlla borom bi subxanahu wa dana ko jox. ndax loolu borom bi leeral nañu ko ci yoon yi nga xamante ne ñu ngi ciy jaar di ci ñaan yàlla ak di ci sëkkar kon loolu sant nañ ci yàlla baax a baax baax di ñaan nag ci réew mi jàmm di ñaan njaboot gi. gi nga xamante ne ñoo boot ci diggante mag sàll ak Ousmane Sonko lépp njabootuk Sénégal lan nan dal te organiser élection yi ñu war a bokk nan bokk ñëpp nan dugg ci biir ci kàttanu yàlla ki borom bi war a fal ki borom bi dogal mu war a faru mu war a falu kooku mooy falu kon nan dala xel yi bu baax a baax a baax te bàyyi lépp ci loxo borom te ñaan yàlla ab jullit amut leen lu du ñaan yàlla. ñu bàyyi la nga tàggatoo ak askan wi lay suivre ci MPROD TV. waaw maa ngi nuyu ñëpp. Mhm. tey ñaan ci réew mi jàmm ndaxte man sama réew damaa ñor. Mhm. di fi ñaan yàlla suñ borom def fi jàmm saxal fi jàmm kilifa yi diine yi nga xamante ni ñoo nekk ñoo nekk ci réew mi borom bi subhanahu wa taala yàggal leen fi bàyyi fi seen njaboot te wéral leen te def ci réew mi jàmm jërë ngeen jëf alxaaji dégg sëñ Narka Badar la ñu fekk si tey ginnaaw ba mu jógee ci xalwa gi mu nekkoon ñu ñëw fekk na muy liggéey ay sangat yu doy gis ngeen xeetu sunguf yi bokk na sunguf si gën a raar muy ndimbali nga xamante ni alal ci lay dox xaalis ci lay dox waaye dafa am façon bu ñu koy utee gis ngeen ni ma ko leeralee ci njëlbeenu kàddoom kon borom xam-xam la tukku yàlla dénk baatin la borom kurus la lasaraar tamit lim ciy def jamono ji euh, doy na waar baatin rek la feesee sëñ Naar Ka Badar mbokk yi numéro yaa ngi noonu képp ku ko ci woo rek di nga ko jot. yéen ñi nga doon topp duñu ñu suivre ci MPROD TV yàlla na ngeen bari jàmm ci dara darajay Muhammad Rasulullah